sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti la leen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak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 mu dox si diggante Giro Seras ndaanaan bu mag boobu ak Abu Ndiasse ñaari ndaanaan lañ boole ñaari gré lañ boole combat la boo xam ñoom ñaar dañu bokk mafia dañu bokk ay supporters mais nag làmb noonu la demee grand Mor moo fa jaar moom macha allah sagu làmb la man làmb nekk promoteur bu ndaw boo xamante bi nii lu mu bëgg si làmb rek dina am te incha allah bu ñu demee le 16 ba ca suba yaakaar naa ne nag dootuñu ko wooyete promoteur bu ndaw ndax dafa jël ay ndaanaan fëgale bu ngor. léegi mu ñibbisi ci réew mi boole ko Karbala doomu Tëngéej jël caatu Jolof nga xam ne macha allah beneen affaire la boole ko bébé rek rek jël armée 2 boole ko ak Boy Sila jël maadi bu sab boole ko ak Petit Ñaa numéro 2. mbokk yi naa yem foofu rek combat yañ ca boole dafa bari lool lool lool maa ngi toog Abou Ndiassé nag li coow li bari bari mësul dugg arène nationale waaye la 16. faaw mu leer maa la ziar baax di la fekk. ginnaaw bi ma sant yàlla jullu si yenant bi di sant ñaari waajur. xam nga di sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan di la santaat yow nit ku baax yi mi nga xam ne da ngaa mën da ngaa laa ko mën a waxe waaw barke sëñ Touba waaw di bëggee ñëpp nag di bëggee képp ku may bëggee waaw parce que man ni may bëggee dafa bëri torop torop waaw waaw bañ jàll si leneen quoi. naan jaasa ci loolu yaa ngi ree rek. non damay ree parce que dama am xar. man moom saa su ne damay am xar incha allah si kàttanu yàlla. Mm-hmm. waaw ñu ngi si xar yi fii xam nga mooy loolu. làmb na dañ ko bëgg quoi. Mm-hmm. waaw dañ ko bëgg mu nekk suñu suñu bëgg-bëgg. Mm-hmm. kenn dugaluñu si. Mm-hmm. macha allah tey ma ñëw fekk la ci daral gi yow ak gars yi Baye Sall bu sitaang noonu gars yëpp macha allah ngeen nekk fii. di jaay xar yi xar yi fu mu xar yi fu mu toll. Baye Sall. <laughs> waaw ñu yëngatu de xar am na mais xaalis moo xaw a manqué quoi xaalis dafa xaw a mange kenn xamul ban dëkk lañ nekk léegi xam nga torop metti na torop mais eh, yaakaar naa ne. ku fi ñëw mën nga am xar ci te metti xam nga lu cher waaw yàlla mën na bëri na sutura quoi waaw mais xar yaa ngi fi. am na solo Ndiassé foo toll ci wàccaay bi sa diggante Giro Seras. waaw ñu ngi si bu baax a baax a baax a baax ñu ngi si bu baax ñu ngi si nekk ak ñu ngi si war a nekkal xam nga nekk si préparation yi di contact contact bi sax moo ëpp quoi. Hmm. waaw. waaw parce moo tax xanaa dama am lu may métti bi ñu ni nit ñi diw mënul bëre. et pourtant maa fi bëre Cheikh Super jamono gars yi ne dafa mën a bëre ma bëre fekk saamu kaar ñu ne dafa mën a bëre mais làmb moo baaxoo loolu xam nga ay ñu fontoo yow Youssouf. jërëjëf bi la bi may ñëw laay muslu ci moom bi may ñëw war naa ko sàng ne maa ngi muslu ci moom. demal sa yoon. <laughs> bëri fàtte na quoi. Youssou a ngi nii sama fils la moom moom maa ko yar xam nga. moom taay daa ponkal de. non mu ngi waaj mu ngi waaj am bi xam comme ambaam lu ñu aj ni mu saal liggéey. moom moom sama booy la maa ko yar bu ñu nekk lu ndaw ba léegi. Mhm. wax dëgg fa yàlla bilaahi. mais lan moo tax contact bi nga ci insisté lan moo xew la nga indi woon sa digganteeg Cheikh Super Diamono ba ngay dem ñu bëri gëmuñu la nga xam li nga xam fanaanoo mer mi ñëw xeex moom bëreeg moom daan avec la manière. loolu nga nar wala lan moo waral ngay kontaan. loolu laa bëgg ci kombaa bi. Eh. waaw non xam nga ma bëgg ko. Hmm. xam nga nit da koy nangu luñ ko wax ñëpp dañ ne giroon daanaan wax dëgg fa yàlla. Eh, nee nañ am na doole am na kàttan. moo tax ma bëgg a bëre moom pour wan ni gars yi damaa mën a bëre te moo tax dama sonn si ñu may nax si ay kaañu rayante. Hmm. waaw ma guerre nga ñëw nax ma te man man damaa dof man damaa def man nekk raag rek. non man loolu laa xam man fi ma dëkkee la. Ah. waaw mais dafa jot tamit nekk duñu ay gan si làmb xam ñu ngi bëgg a miin làmb léegi ñu ngi siy bëgg a yàgg. waaw ñaata yoon lañ ma nax si affaire yooyu. Pape Ndoye daf ma nax. parce que dama dem ba fàtte ni sax damay bëre. su moo ma woo si xeex bi signature bi lépp. Mm-hmm, waaw man it ma am gëm-gëm boobu ma ne kii jàmbaar la. moo tax sax ma fàtte ni man mii damay bëre. mu daan ma jël bu mër bu rëy. kon combat boobu jël bi mu la daan avec la am na loo ci jàng. waaye bu baax parce que xam nga gars yi léegi déggoon man la neexum xel lañuy demee. waaw neexum ay gain reyante wuñu. andil la euh, dama dépassé niveau boobu. waaw te làmb ji boo gisee ba boole daf ma ci sorti yu bëri nga xam ne fonk naa ko. Mhm. parce que nekkul mënoo am ci loo jóge am looy waajal fu. fu la mhm. neex nga nekk fu la neex nga génn wécceeg wécceeg wécceeg non non. man waratuma wax dama war a jëf parce que foofu laa toll waaw en tout man ñi may topp xam nañ bu baax man may kan moo daan da gars gaay damay dégg ñu ko ku mënul dara gaay yi dañu la topp mais moo daan da ñi may topp xam nañ man may kan xam nañ Abou njaase bu ragalee xam nañ bu ragalul xam nañ mu mënee bëre xam nañ mu mënul bëre xam nañ waaw am na solo lan lan moo waral boobu ba léegi raar bi ñi naan aboo nga Gambie ñi naan abo nga Maroc ñi naan abo gisatuñ ko lan moo xew. waaw fonk làmb ji rek. xam nga comme parce que combat bi moom dayo ko combat bi dafa am dayo de. loolu ngay wax yow. waaw ñii sax ñooñu xawoon na sax fausse teg gars yi sénégalais yi péréction ba péréction bi bëri sax mais làmb ji dëgg la làmb la daal. làmb bu mo maanaam moo daan tëggalaat ay journée. Mm. dina xam ne journée bi mu tëgg nii ma car macha allah. Mm. nañ mobiliser ba mu fees man gis naa loolu. waaw ñu ñëw ci adversaire bi nga am adversaire la boo xam ne du bàyyi der la du ragal day bëre jox làmb ak xam ba mu mat sëkk te du arrière abu adversaire bi nga am xam naa ko ndaanaan la xam nga nit da koy waxal li nekk ci moom ndaanaan la mais moom it mu ngi bëre ak ndaanaan waaw te xam naa ni respecté na ma nag mais damay gis ni muy waxee damay ree rek lan nga ci jàpp ni moom xamuma mais du ma ko si wax dara am na droit mais bu ñu bëree ba pare xëy na dina xam man maay kan. dafa gis ne xeebal dafa am wala xaw ma daal mais ni waxee moom. nga ne amul fu mu toog. fan lay toog xanaa si gàllaaj te man gàllaaj du ma jàpp. man gàllaaj du ma jàpp. waaw pulaar la de. waaw al pulaar la mais man mais man man pulaar laa ak séeréer. da pulaar ak séeréer laa du ma wax lépp nag man doomu séeréer ak pël laa. samay maam ay pël lañ yu jur sama yaay mais am na yoon mënu ma ko wax. parce que amul la wax ci guerre bi. ci bëre bi laa lay wax comme nee nga geer bi moom instant doyal nga ci parce que gars yi dañ lay nax. dinaa nag làmb moom mënuñ ku la nekk maa moom du ñu xeex mun lay nax. dellu sa manin. waaw mais dama bëgg woon ni gars yi tamit mën naa bëre de. Hmm. ah gars yi ne ñu daw hmm. yooru daan la ñibbi. Hmm. léegi damay yooru jàppale daan la ñibbi comme ñëpp. arène nationale mosoo fa bëre. ñëw nga fa. ànd nga ak mbër ba tàyyi ñëw nga tuus fa abu am bisu boppam nag mu gën a jege xam nga Iba Mar nga daan dem mbooloo bi di ñëw mais bii nga am sa bisu bopp muy sa ginnaaw kër nan nga fas yéene ñëw. xam nga xam yàlla dimbali na ma ah, Iba li ma fa moom fa mos a dama ko tëj. li ma fa mos a bëree mm-hmm. ko tëj. fii da des fois demoon naa ba toll. demoon naa ba toll jamono joo xam ne bëre fii buñ ma. ba si jam bi mu tegee sama lamb pam doy xawoon nañ sax meroo ndax dama ne woon fii la koy def. ba ci yàgg mu def man na ko garaaw mais man li ma gisoon mooy nga def ko foofu. te moom gis na résultat bi. Mhm. après dem na ba stade bi kenn mënatul dugg man na ko lii laa doon bañ. Mhm. mais nag këy xam këy moo comme Mor moo ñëw am initiative boobu. Mhm. man ma bëggoon rêve bëri fii. gëm naa ne fi may bëri incha allah si kattanu ndam laa fay tijjee quoi. si kattanu mën a xaar ci Abou Ndiassé ci dugg si ci ambiance ci mobilisation. ci beneen innovation bu bokkut ak ba nga doon ñëwee. surtout maa si bëre bi. lu tax ngay ci bëre bi. que bëre bi. eh xar bi balaa yàq suñ combat bi. non yàq non xar bi du ko yàq <laughs> parce que bëre bi dafa jot ñu wone ko. Hmm. Hmm. daan nañ ko wone sax. xam nga ñëwal nañ ko wone sax mais nañ bëgg gën ko wone. bul dañ bëgg gën ko wone pour nit ñi gën ko bis gën a xam maanaam qualité yi nekk si man. parce que toujours ñun affaire booy banlieue lañ lay jaayee xeex xeex yooyu amul dañ dépassé niveau boobu waaw. ba ngeen fay mujj diggante ma gën ak dóor dóoraat parcelle dóor mu daanu loon bu ma juumul Siteu moo fa mujj a bëri ak sos boobu ba tey ñaari écuries yi laalante waat. non laalante waatuñu boobu la dañuy fayu fayu rek lañ bëgg nag. non bii nag moo leen di të. fayu rek lañ bëgg parce que dóor mu daanum dañ cee mer de. non mais garaawal nañ moytu loolu amaat sax. loolu nañ moytu mu amaat. Siteu da lay abal ab taake. non yooyu yëpp mën a nekk <laughs> en tout cas daal làmb bu ma fonk torop la torop torop torop torop. dina am ceddo la de giro. waaw ah, ceddo la mais man maay bàyyi ceddo yi. Eh. man moo ànd man dara jaaxaluma si àddina barke Serigne Touba moo tax sax ma toog ne ceele ne tàcc. parce que parce que dara jaaxaluma si àddina. lépp laa xam. Mm-hmm. dama dox dund gis lu nekk. Mm-hmm. mais bon ma ku baax laa. ku sopp doomu aadama laa te si laay dox te si dëgg rek laay dee waaw dëgg rek laay wallaahi mm-hmm. am na solo Ndiassé Ndiassé lan la ko gars yi toppee loolu laa lay laaj parce que bu fekkee ne victoire ak defet wala defet mooy tax duñ toppati mbër gars yi mën naa ne wàññiku nañ parce que instant yi neexul période bii nga toll Eumeu seen tolloon na fi amutoon courage wala gars yi toppatuñ ko woon mais ba mu ñëwee ca Balla gay gëm boppam daan Balla Gaye 8 février 2009. boobu la làmbam ubbeeku mu amaat million am fi kër nekk fi roi de arènes période boobu nga toll nan nga mën a defaat ba convaincre say supporters ba convaincre amateurs yi pour ñu gën a. dëgg la ama man moo doon yow amoon na man mosuma ñëw làmb ba ñu jéppi ma te ñi may topp ñoom xam nañ man maay kan xam nañ sama dayo xam nañ sama qualité xam nañ li ma mën te man moo daan man dafa jot ma am xaalis si làmb parce damay mobiliser damay feesale saat bu ma ñëwee ñëppay bëgg mais kon li des mooy lan focus si li ngay def wane bërëb bi nekk si yow parce que ñun dañu moo nekk li ma la ñoom benn xelu xel boo xam ne mën naa ne du sax xel ay noonu ñu rayante affaire jàmbaar ay jàmbaar lañ loolu kenn du ko naataabale dafa jot léegi ñu demee suñu esprit parce que ku may conseil loolu la may bëre du xadar du ay xel mu sell la te yàlla dimbal na ma musuma bëre ak mbër bay bàyyi xel ni sax maa ngi bëre mbër wala li wala di ko tiit wala di am xof loolu namul si man amul si man man munu ma ragal munu ragal si àddina mën naa dal nag parce que lan parce que nit ñi mënuñu la respecté ba pare ngay nekk fii foo jaar di funki di actionné yooyu amul chance moo tax saa su ne ñi may jox cër toujours dama leen koy delloo te ñi may supporté samay gaañ la ñi samay mbokk ñi samay am di jàmm ak ñoo xam ne dañ ma bëggee fu nekk man ba si parcelle laa dama fa am ay soppe barki borom Touba ak ak feneen ak feneen ak feneen bu ma fi doon lépp du jeex. borom Gambi. waaw borom Gambi yaay yaa ngi wax Gambi dëkk bu ma miin. Paate. Paate ay alu xam nga ay aba ay lion noir maanaam bëri na fa ñoo xam ne su may gaañ lañ damay ñëw maanaam damay mel ni sama sama koñ laa nekk sama gàll. lu ma neex laay def si Serekunda aw ma fa sans interdit xam nga. maanaam di sant Gàmbi tamit di leen wax maa ngi gis ñaan yi nañ gën a ñaan xam nga parce que làmb ji làmb ju ma fonk la te dama ci lu ma si bëgg a wane waaw on anda hmm. yàlla baax na yàlla defal jàmm rek. am na solo dañu dañu gis benn image boo xamante bi nii yàggul yàggul dara gars yi ñu ngi koy génnewaat muy féete Ada fekk la Ibamar tëkku la ne la kaay ñu bëree grand kaay ñu bëree ñëw di la song nga mbëkk ko muy affaire boo xamante bi ni affaire la mbërëg bëgg a bëreeg mbër tey làmb di dox ñu dem nga dem sa làmb xaw a balancé moom làmbam xaw a yëg dem ba nattu dal ci kawam en tant que frère ngeen jël affaire adversité bi teg ko fële lan nga koy wax. waaw Ada Fass xale la xam xale nag saa su ne deretam day tàng xam nga coow li bëri na mais man pour man loolu natt bu ko war a dal la te xoola kenn mënu si dara mu yéexoon mu gaaw da koy dal mais ñu ko jege dañ ko jàppale. buñ ko meree. Mm-hmm. parce que moom booy la motul. Mm-hmm. te succès maanaam yóbbuwu ko sax. waaw te yóbbuwu ko sax mais xale la day am fugu loolu dara mais ñi ko jege nañ ko gën a encadré mm-hmm. ñoom mbër yu mag yi ñoom ñoom nañ ko taxaw parce que loolu moo leen war. xam nga la moo moo leen war. parce que ñoom famille lañ. bu jeexee affaire làmb yooyu rek ñoom ñëpp famille lañ parce que ñoom ñoom ñoom ñoom mag ñi. ñoom ñoo war a taxawu ndaw ñi ndax ñoom mag ñi dañ leen taxaw woon. mais Ada Fass nañ ko coow lu bari gisoo benn mag bu fa dem taxaw te rafetul te man mii di wax yow suba suba loolu mën na ma dal loolu mën na ma dal moo tax xam nga nañ ko taxawu quoi taxawu képp ku nekk si làmb koo xam ni nattu da lay dal comme si yu mel nii gëm naa ne bu jigéen si yii dootu ko dal waaw xam nga xale la nag xam nga man daal maa ngi koy ñaanal fi mu nekk na ko gars yi taxaw yàlla defal ko jàmm mu ñëw parce que avenir la xam nga man man man lijjanti man mbëri yëpp man ñëpp laa yemale mm-hmm. man damay dund man kenn xañu ma dund wala mais rafetul na ko mbëri taxaw taxaw mooy ñoom Gris Bordeaux ñoom ñi nga xam ñoom ñoo jiite mbëri lañ wax nañ dox si loolu parce que loolu moo leen war ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mënu ma lim ñëpp moom laa mën a lim parce que seen raq la seen doom la seen derbaar la te lii bu si jógee xanaa ñu ko ñu ko jege dinañ ko gën a encadré parce que moom xale la de xamul dara waaw maa ngi koy ñaanal jàmm daal loolu laa mën a wax si moom am na solo message bi am na solo lool képp ku xam Ada Fass xam ne moom ak waa jàmm gën gis nga làmb ji coow li ni mu doon demee Ada Fass Abou Ndiassé fii Mama Lamine fii Siteu fii comprendre nga ñu doon ñu nekk ñuy neexal làmb bi muy doo a dugg ci làmb Abou Ndiassé mi toog la bëgg na bëreel dem na ba ci digg bi tamit jël la Abou Ndiassé di laaj ñeneen mais gis nga tey li mu wax ci moom moo tax nga xam ne xol rek moo am solo nekk Baye Fall ak jàmbaar rek am solo tey jël nañ affaire adversité yëpp teg ko fële en tant que frère mu ñaanal ko yal ko suñu borom defal jàmm mbër. xam nga moo tax ma parce que bu ci dindee maanaam moom mbër la te ñun ay mbër lañ kon bu ñu seetaanee ñu def loolu mbër mi rek ëllëg mën nañ ma ko def wala ñu def ko keneen te boo xoolee seen fee bi moom fee bi du si dara xanaa kay dañ ko bëgg a tëj rek parce que ñun it xam nañ xam nañ lu waa moo tax affaire bi ku ko déglu da nga ko boo xamul nag di ngeen kii lii laa kii lii laa mais boo xamee droit xam affaire yu yoon xam affaire da ngay xam ni fee bi moom waruñu ko si woon sax téye parce que moom sàccul sàccaanu dafa am ñu jël ñu woo ko mu ñëw loolu demee noonu waaw mais man man du ma man moom xam nga man man amul mbër bu may bëgg lu la dara mais damay wax si te yàlla rek tax. am jaase ma bàyyi la nga tàggoo woote tarkindaa yu ndaw yeeg yu mag yeeg. di woo yamb yëpp laay woo. <laughs> yamb yëpp la. waaw man yamb yëpp laay woo. mooy dergindaa yi damay woo yamb yi di woo jàmbaar yi mm. di woo ñi may jàppale di wax nag soxla naa jàppale torop mm, waa soxla soxla naa ko torop parce que ñun suñ côté bi dafa métti mm. ñu ñuy jàppale sax mais par rapport ak ndakaaru xam nga moo daan fii ay champion ñoo fi nekk. ñëw may la 4 bloc. may doon ay yombal dëgg la man anda fii dëgg la mosuma bëre li ngay gis nit ñëw mosuma jënd benn bloc te bu ma soñoon damay jënd ay bloc nit ñi dem. parce que te fii xam la noonu neex fii xale yu ndaw sax dañuy dox dem stade moo tax ñooñu nag moo tax ma bëgg ay bolog pour mën leen ko séddale. billaahi di wax tamit mbër yi nañ defaraat seen jikko yi. nañ defaraat seen jikko yi parce que xamal na laay sa lu ma naan la hmm. ñoom rek ñoo fi nekk di weerante. waaw waaw xam nga ku nekk kii jàppal kii am diw kii jàpp kii am diw te pourtant ñoom famille la. non ñoom ñoo fi nekk di weerante. karaat doole maa ngi koy seetaan. kii soq maa ngi koy seetaan pourtant loolu mën na ñàkk seen biir man moo ànda man dëgg la mbëri laa ku ma ci amoon règlement de compte wala yooyu du ko wax si micro damay dajeeg yow jaay la sama bakkan bi après ñu pare mu jeex mais eh, du ma dem si média jàpp la di la yàq man xaw ma léegi man Sénégal lañ nekk dangay gis nit yor ay ojo nit génnee ko dugal ko si internet bi pour yàq ko pour lan ah mais ñun ban live lañu nekk ban dëkk lañu nekk léegi. moo daan nit war nga ko mën a xamal lu bonam denc ko waxal ko lu baax parce que loolu mooy àddina nit ku baax du wax lu bon mais boo fa xoolee ñiy wax lu bon ci nit ñi yëpp ñoo ñoo gën a bon boo demee amaana parce que man pour man nit ki doo ko xamal lii boo ko waxee munul yàq àddina am nag munul dara si moom xam nga donte ni ay ndogaleem ku ci ah noonu laa ko yërëmee. billaay xam nga ma dama ma yërëm ko dafa métti donte ni def na loolu mais nañ ko suturaal te kooku jël ay audio tamit tas ko si dëkk bi xam nga yooyu rafetul nañ seewtu nañ defaraat jikko yi waaye suñ dëkk bi dafa may mag ñu baare mais léegi jikko yi ñoo yàqu man xoolal man du dara man ay whatsapp nii sax soowu ma si moo ma si waxul waxu business wala affaire bu am importance gaw ma talu ko boo mu wooyee nag danga may jot mais message whatsapp pour ma lire ko sax day jafe parce que damay dem ba dama ci focusul parce que dafa dem ba dafa yàq jikko yi moo daan de jikko sénégalais dafa yàqu de. si si non man ñàkk su ma ndey dañoo réer léegi. Ah, parce que wax ko maanaam dëgg sax dafay réer. Mm-hmm. waaw moo daan man damay jékki-jékki damay toog te damay choqué wu non wóor na yàlla. parce que xamuñu loolu. xamuñu loolu di ñaan ci dëkk bi jàmm. di wax ni politiciens yi dëgg la mm-hmm. ñu ngi politique xam nga mais ñoom ñëpp nañ xool li nga xam ne mooy dëgg ak nu mu rafetee ñu doxalee ko noonu parce que yàlla dëgg la bëgg waaw mais nit ñi dañu ragal dëgg léegi hmm. waaw léegi dañu ragal dëgg te loolu baaxul waaw bëgg naa la moo daan daal. macha allah champion baa ngi noonu ah buñ naan mbëri dañoo dof déglu leen ko bu baax de waxi nit la wax de wax yoo xamante bi nii macha allah boo ko déggee ci nopp bu baax bi day dugg ci xel yi macha allah. toog di yàqante di ñun toog di yàqante di xaawente sutura moo daan da bu ma waaw yow moo daan da mbëri moo tax ay seer lañ. moo tax ngaaxa baaxul non dañ non dañuy nelaw de. macha allah mi ngi noonu mbokk yi Abou Ndiassé lan dalaloon tey dégg ko kaddu yi nga xamante ni macha allah yëkkati na ko jëmale ko ci adversaire yi yeneen kaddu yi na ko pour njaax ko ñaax ko senesu Sénégal pour ñaax ko ndawu Sénégal macha allah kenn ku nekk nag mën ngaa jël li nga xamante mun na la jariñ nga dugal ko si biir xol waaye kenn ku nekk mën ngaa jël li nga xamante bi ni baaxul ci yow nga bàyyi mu sedd mbokk yi di leen jox di daje rek ba beneen incha allah jërëjëf.